bi nga xamante ni moom la sunu yaay bi sunu bàjjen bi euh, dama ko ci doon féliciter y a il plus de dix mois. Mm-hmm. parce que simplement ni da am personalité da ngay am fulla xam nga mën nañ bañ a d'accord sunu biir fii ñu bañ a d'accord ak fii nekkatul APR ak. Mm-hmm. Macky Sall ak fii Sénégal la. Mm-hmm. Sénégal ak France door nañ leen 2002. dooraat leen fii. c'était à Casablanca. benn rencontre d'été bu fa amoon moom mii Nicolas Sarkozy dafa ne le dérèglement démographique moom sa conception sa philosophie philosophie li mu ko jox mooy les femmes africaines seen fertilité def cee am yoon dafa wax waxkat ndaw si sunu yaay bi suñu bàjjen bu baax bi ci personnalité ak classe ak mhm. intellect bu fort tontu ko tontu ah normal <laughs> xam nga lépp nag tolluwaay la. Mhm. amaana bu doon man mi maa toog ci wetam fa laay ne naan bon vous savez di te te kenn du ko maye. par conséquent taxawaay bi jigéen am nii ci kanamu kii nga xamante ni man jàpp naa ni c'est l'un des plus grands criminels au monde waru woon sax toog fii di wax di taxawaalu nii ni ñu jëlee Laurent bo mhm. yóbbu CPI noonu la ñu waroon jëlee kii yóbbu CPI tribunal pénal international. cour pénale internationale ak ñeneen ñu mel ni ñoom moom di circuler ci Sénégal ci Afrique ci fu ne am la kilo sax ñëwaat biir Afrique toog fii di fi wax lu mel moom mi nga xamante ni le 26 juillet 2007 waxoon na fi fii ci ci Sénégal bi fi ñëwee ci université wax du ñaaw que l'Afrique n'avait presque pas d'histoire comme eh Wilfried c'est parce que lui n'a presque pas d'histoire comme Hegel le philosophe allemand ni mu ko waxee woon boo xam te ba mu ko waxee Cheikh Anta ko tontu. Mhm. xamal ko ne ko l'Afrique le berceau de l'humanité tout à fait étayé ko sur le plan scientifique. pour juste dire que kii nga xamante ni mooy Nicolas Sarkozy dafa am dafa ñoo xamante ni seen logique c'est un bon français nag nañ ko comprendre parce que il défend bien ses intérêts. mais daf ci boole si dama koy wooyee euh, schizophrénie koo xamante ne dafa am maladie c'est-à-dire que boo xoolee sa façon de faire ses manière gestuelle bi mu amee ak son arrogance loolu dafay traduire aussi moom bosam dafa fës ñi mel ni moom nag dañoo bëri tënk suñu réew yi te seen bos fësul ñu am une correction disciplinaire boo xam da nga leen di xool ne ah ils sont corrects fekk dans le fond ils sont comme lui moom nag xëy na am na honnêteté wu mel ni mu mel naturel mais juste dire que ni jigéen taxawee nii wane fulla bi waaye lan moo tax góor du taxawee nii ci kanamu ñii wan leen lii loolu moo ma jaaxal ba tax mhm. tey xasma yàlla ñu dalal fi jigéen bii bu mel ni moom pour moom jigéen bii nga xamante ni dafa gëm li nga xamante ni mooy link organisation fédérée mhm. pour tënk mm. moom mi nga xamante ni jàng na dans le domaine sanitaire def nga ko ak social en Italie yëngatu ci li nga xamante ni mooy politique euh, entre autres diplômes et cetera nekk jigéen soo dégloo waxtaan bi nga xamante ni sunu yaay bi am na ko ak kii di Nicolas Sarkozy lan ngay yëg ak sa xel ci lan lay dem. Euh, merci beaucoup Pa Assane Euh, Madame euh, Mimi, elle a parlé pour toutes les femmes, mm -hmm. elle a parlé pour tous les hommes, mm -hmm. elle a parlé pour tous les Africains. alhamdulilah euh, jigéen ñu mel ni mënuñoo ñàkk moom c'est une personne de référence koo xam ni la elle a choisi ses batailles et elle est de les mener bien euh, xam nga Pa Assane euh, jigéen mooy colonne vertébrale société c'est la femme la base suñ demee yàqkat yi suñuy yàq mënuñu ko jaare fenn lu dul ci jigéen foofu rek la ñuy mën a réussir ndax jigéen mooy soxna mooy yaay mooy doom mooy yar mooy góor mooy ñëw ci biir kër gi mu changé xelam jigéen pouvoir bi mu am amul doole waaye yàlla may na ko pexe yàlla may na ko pouvoir ci borom këram may na ko pouvoir ci njabootam donc borom kër yi ñooy président yi ñooy ministre yi ñooy sëriñ yi donc ñooy ñi nga xam ni ñoo nekk ci kaw donc jigéen yàlla da ko may loo xam ni lu mu bëgg a changer mën na ko changer lu mu bëgg defar mën na koo defar waaye maa la maa day taal aussi lu mu bëgg a yàq mën na koo yàq kon yàlla nañ ci yàlla musal euh, ku mel ni euh, madame Mimi li mu toog fii wax ko ci kanamu Sarkozy ak kanamu yeneen président à Casablanca loolu toogaay bu jigéen ñëpp war a toogee la man j'ai été en Europe j'ai fait quinze ans là-bas j'ai étudié là-bas j'ai travaillé la bas xam naa lan mooy le système européen xam naa lan mooy la pensée européenne xam naa ñoom fi ñu toll léegi ak fi ñu bëgg a toll mais li ñu xamul mooy ñun ñii nga xam ne dañ doon jóg di dem seen dëkk di wuti ba ñu toog conscientiser wu ni ñun li ñuy wuti fële bàyyi nañ ko suñu réew ñu bàyyi leen ak seen réew ñëw suñu réew pour defar ko ñëw suñu réew pour liggéey ko parce que ñun am nañ loo xam ne ñoom amuñu ko muy am nañ suuf su meññ macha allah am nañ suuf su yaatu macha allah ñoom seen suuf bay nañ ko def nañ ci engrais ba liñ liñ ci daan am mënatuñ koo am donc ñun ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi nga xam ni jigéen ñi euh, FAO nee na 70 pour cent de la main d'œuvre ñoom ñoo ko yor de la main d'œuvre agricole ñoom ñoo ko yor donc jigéen ñi li ñuy def ci mbay mi kenn xamul mu toll li ñuy def ci transformation bariwul 10 pour cent rek la mais li ñuy def ci commercialisation c'est de 60 à 90 pour cent donc jigéen ñi fi ñu toll nii euh, Pa Assane jot na sëkk ñu gën leen a jàppale ñu ngi leen di jàppale ndax ñu ngi leen di jox suuf. Euh, ministère de l' agriculture mi ngi ciy def liggéey bu rafet ñi ngi leen di jox suuf ñi ngi leen di jox semence mais am na beneen accompagnement tamit boo xam ne gën nañ koo gën nañ koo soxla mooy nit ki soo ko mayee ba pare dimbali ko noo koy dimbalee jox nga ko suuf mi ngi bay jox nga ko ay machine mi ngi koy jëfandikoo su bayee ba pare nan lay def li mu bay li mu bay yépp mënuñu koo jëfandikoo ci benn période dañoo soxla conservation danoo soxla transformation dañoo soxla ñoo xam ni dañoo réseauté mën leen a distribuer seen produit ban jaay ko donc man maa ngi nekk présidente benn association bu ñuy wax PAF PAF mooy c'est c'est une plateforme pour l'autonomisation de la femme africaine parce que jot na sëkk fi mu toll nii jigéen ñaa ngi ciy liggéey jigéen ñi jàmbaar lañu soo leen demee sur le terrain ba gis li ñuy def xam ne jigéen ñu tooguñu lépp loo xam ne war nañ koo def pour jëmale Sénégal kanam wax ma Sénégal rek pour jëmale Afrique kanam ndax ñun sunu association yi léegi yamatul Sénégal rek dañuy daje biir Sénégal pour le consommer local dañuy daje pour biir Sénégal pour sukkali sunu réew mais xam nañ ni euh, développement fi ñu toll ni c'est africaine mhm. c'est la coopération sud-sud donc ñun ñi ngeek euh, beneen groupement de femme boo xam ne man sama groupement ça fait quinze mille femme dans le monde rural donc 15000 femmes yoo xam ne euh, man mi présidente bi am naa sama vice présidente boo xam ne elle est gambienne elle est euh, aux États-Unis ñu ngi koy wax ay cha Diallo am na sama euh, secrétaire général boo xam ne elle s'appelle Yacine Yacine Ndiaye moom mooy yoxe ma féminité xam naa di ngeen ko gis ma féminité est comme elle moom elle travaille dans la digitalisation sama trésorière moom elle a derrière elle 10 000 femmes mooy madame Cissé Aysatu à Nganda ñoom foofu am nañu 1083 hectares di fa ectares di fa bay ceeb bio di fa bay dugub. Ah. di fa bay waaw di fa bay bio bi di fa bay dugub. ceeb bio mooy la bio duñ ci def. Euh, duñ ci def lu dul naturel. engrais. waaw te léegi jigéen ñi ñu ngi yeewu ci loolu. Mhm. ñu ngi yeewu ci ni wér gi yaramu nit mooy li muy lekk donc li muy lekk nag mooy li muy li ñuy bay. dañoo bëgg dem Pa Assane mhm. ba ñun li ñuy jëfandikoo dootuñu ko jëlee ci biti ndax ñun on a déjà entendu li sax Sarkozy wax euh, leur philosophie de la femme limiter leur fertilité exact. et comment peuvent-ils limiter notre fertilité war na noo xalaat sur les moyens qu'ils peuvent utiliser ba limiter suñu fertilité donc ñun li ñuy lekk war nañ ko xool mm. li ñuy naan war nañ ko xool suñ ko mënee defal suñu bopp di ko defal suñu bopp euh, euh, paasan nit mag ñi nitu yàlla yi liñ daan lekk ñoo ko daan bayal seen bopp lin daan naan dinañ xam fu mu jóge day am traçabilité ñoom li ñuy lekk ndax ragal yàlla ñun tamit euh, war suñu wér-gu-yaram rek war naa tax li ñuy lekk am traçabilité war na ñoo xam parce que yaa ngi dégg li muy wax ah, ah waa pexem tubaab mi rëy na lool ba mën nañ sax bu ñu amul pexe moom ñu ci suñu xel yi dañuy koy dugal sax ci ay ndox mi ak naan bi ak yooyu nañu bàyyi lekk fii. Ah, dégg ngeen partagé leen mais asma ndox mi ñuy naan pexe. Mhm. jigéen yàlla la ko may. waaw donc lu ñu am am pexe. Mhm. fekk nañ fi yeneen pexe. donc. Euh, ah madame Aïdara man bëgg naa la waaye <laughs> waxaat <laughs> ngi am tamit beneen groupement de femmes boo xam ne mi ngi tudd FIED. Mhm. FIED euh, c'est un forum des femmes entreprenantes et dynamiques mi ngi nekk euh, mi ngi basé wu à la Côte d'Ivoire seen présidente di Djelika Yao. Mhm. moom tamit elle a derrière elle vingt cinq mille femmes entreprenantes son slogan est partir de rien pour devenir quelqu'un mi ngi lijjanti ay waaye mi ngi lijjanti ay financement pour jigéen ñooñu di leen ko jox mi ngi liggéey liggéey bu rëy foofu mu tànn ma nag ma nekk représentant ma nekk euh, responsable de l'organisation du FIED au Sénégal et en Afrique donc fu ñu mënti jëm aussi je suis dans le team waxuma la loolu euh, euh, Pa Assane fi mu toll nii am nañu ay canadiens yoo xam ne ñi ngi taxaw avec leur délégation bëgg indi seen expertise Sénégal ndax ñoom nee nañu euh, mooy Sadia Lakhal moom c'est une algérienne mais qui est nationalisée euh, qui est nationalisée oui qui est nationalisée euh, canadienne moom pare na ndax nee nañ ma l'avenir c'est l'Afrique gis nga les futurs euh, euh les futurs conducteurs de Ferrari de Ferrari les futurs euh, propriétaires de Ferrari les futurs milliardaires ce sont les cultivateurs. des Lamborghini. man <laughs> damay bay. tonton Mansour Diop moo dégg nag. <laughs> su su ma su may dégg lii. Mhm. Euh, discours bi euh, mu mu ci discours madame Aminata Touré. Mhm. sama xel dafay dal. Mhm. parce que bu jigéen comprendre ni. li ñuy lekk dañ ko war a xool. waaw li ñuy naan dañ ko war a xam. ginnaaw buñ ko xoolee xam. te foofu dañuy wax suñu kilifa yi dañ ko fi yàgg wax ne ndox mi nga xamante ni dafa nekk secteur stratégique moo ko éducation ak santé ñun ñoo ko war a moomal suñu bopp ñun suñu jafe-jafe mu ngi tàmbali ba nga xamante ni kële ñëw na di ñu jàngal civilisation. Mhm. moo faussé plan yi parce que mhm. mag yooyu ngay wax. Mhm. seen jamono ba ñuy dund. mag yi suñu maam yi ñun daawuñu feebar. sunu maam yi daawuñu. xëy mënoon gudd fan lool AVC yàggul. lii nga xew fu daan amit bëriwul. lu tax mu jékki-jékki bëri si jamono bi parce que environnement bi ak ni ñuy dundee bu jigéen comprendre nag nii. de façon stratégique ne que toll nañ foo xamante ni war nañ mën a xoolaat lu ñuy lekk ak li ñuy naan ak et cetera. Mm-hmm. ça rassure. Mm-hmm. quand on parle de fertilité yow Sarkozy mi yow yàlla moom fertilité mm-hmm. moom kuy juddoo ku dul juddu. nga toog naan di def say say calcul naan onze milliards buñ ca yeggee moom xamul sax kañ lay fanaana kañ lay yow. mais pas Assane xam nga lu bizarre je m'excuse xam nga lu bizarre soo nekkee Europe tu te rends que la population européenne vieillit. exact amatuñu xale. donc ce qu'ils font mooy ñi ngi jox non dañuy fay jigéen ñi pour ñu am doom si tu un deuxième enfant ñu dolli la mille euros su mm-hmm. boole la jox la yeneen subvention neexal la tu as un troisième enfant loo là c'est la fête si tu as un quatrième enfant nag su la neexee nga bañ a liggéeyati donc ñoom politique boobu la ñuy def seen réew ah. léegi ñu bëgg ñëw fii ni yéen arrêté leen jur seen fertilité waa seen fertilité dañ ciy def seen loxo parce que xam nañ ni. mbooloo mooy doole. donc Chine lu leen may lu leen may liñ doon. Mm-hmm. voilà Chine aussi seen defoon nan ñoom aussi seen politique. de limitation. fuñ ci toll léegi. dañ cee a voilà. donc loolu mooy euh, ce qu'il dit nit ñi déglu nañ ko. nit ñi xam nañ fi muy waxee terewul ñi ngi def li ñuy def. Mm-hmm. waaw nit ñaa ngi am doom alhamdulilah yal na gën a yokk yal na nu yàlla musal mais tamit ñi ngi gis ni opération yi bari nañ. Mm-hmm. léegi jigéen day matu su ne ñu opéré. te c'est subventionné doo fay dara. Hmm. te soo amee ñetti opération. lu tax loolu maximum quatre de sa limite. sa limite opération sa limite merci de le dire. Mhm. merci le préciser. donc essayer te loolu dañ ko subventionné ba tu ne rien loo xam ni soo ko daan def bu njëkk da ngay génne benn sept cent mille wala huit cent mille francs léegi da ngay dem def ko dix mille ngay génne wala huit mille francs. une façon une façon alors <clears throat> ya a une chose bu ma bëgg <clears throat> nga wax ko. Mhm. nga wax ñu ci. Mhm. tey. yaa ngi gis situation Sénégal fi mu toll. Mhm. Euh, au la de Corona comment les Sénégalais ak les Sénégalais vivent. Mhm. ban jàngat nga am ci situation jigéen actuellement ci biir Sénégal ak populisation bi ak pauvreté bi. Euh, c'est dommage et ça fait mal au cœur comme on, comme on a dit euh, temps dafa xat jamono dafa xat dund dafa xat donc il faut bien choisir ses batailles. il faut bien concentrer concentrer son énergie euh, asma 24 heures li ci xaj bariwul donc loo ciy def rek na la ñor donc man ma bataille c'est les femmes dans le monde rural ñooñu ñoo sonn euh, paasan sooy wax euh, la situation actuelle du pays tegam ñun ñi nga xam ne ay entrepreneur lañu on a des difficultés par rapport à la situation actuelle ñi nga xam ne nag li liñ doon dundee mooy li ñuy bay te ñam mënatul génn ci dëkk bi nit ñi jaayatuñ ko liñ daan bay yàqu na wala amatuñu sax lu nu bayee am na ñoo xam ne sax jotuñu jiw ba mën a bay ñooñu léegi nan la ñuy dundee fi ñu toll nii ñun bokk na si suñu activité à court terme avec la pandémie on va prendre toutes les dispositions nécessaires du ñu bari ñett la ñuy doon ak suñuy masque ak distanciation ak li ñu mën a laaj yépp ci loolu dañuy dem ci àll bi sensibiliser nit ñi parce qu'on s'est rendu compte que l Covid est seulement un de la capitale nit ñaa ngi koy waxtaane fii nit ñi xam nañ ko nit ñaa ngi utiliser les protections nécessaires mais soo demee ba ci biir àll bi dañ naan la ñun ñi ngi ngénte ba tey ñi ngi ceet ba tey ñi ngi dem suñu regroupement ba tey feebar bi amu fi te feebar bu jógee Chine ñëw ba fii mën na mën na egg fu nekk donc dem ci ñoom sensibiliser leen waxtaan ak ñoom yóbbul leen ay masque yóbbul leen ay gel yóbbul leen ay vivre parce que dañ koo soxla hmm. ndax fi mu nii jamono ji ñi nekk ci ville bi dañoo sonn kon ñi nekk fële nga xam ne seen ressource demeewul noonu nan la ñuy def donc loolu ñu ngi ciy tàllal loxo nguur gi aussi pour ñu jàpp en terme de perspective lan nga yaakaar ne tey mhm. Mhm. nguuru Sénégal war na ko mën a def mu jëm ci jaboot gi mhm. ku wax jigéen wax xale jaboot gi en général tey jii nii boo amoon looy proposé président Macky Sall ou l'état du Sénégal en général ci wàllu solution ci situation difficile bi sénégalais yi di dund lan lay doon ak sénégalais yi surtout euh, euh, Paasan y de volets xam nga soo waxee jigéen wax nga borom këram wax nga ay doomam wax nga ay jarbaatam Sénégal on est une famille élargie. Mhm. <coughs> donc soo tuddee benn jigéen rek tudd nga tout la famille. tout à fait ñun su ne on a 15000 femmes on a en tête en perspective qu'on a 70000 familles. Mhm. donc c' est est énorme Macky Sall je pense que la première chose bi mu defoon mooy bi feebar bi commencé rek mu wut ay dunt wut ceeb wut diwlin wut meew distribuer ko dans les communautés loolu c'est excellent parce que nit ñi li ñu njëkk soxla fi mu nii mooy lu ñu dundee li ñu njëkk soxla mooy matière première mooy li ñuy utiliser tous les jours mm-hmm. ndax nag loolu jote na ñëpp wala jotewul ñëpp yàlla xam am na ñoo xam ne tamit jotuñu ci ndax kenn mënul dajal ñëpp. mais initiative bi baaxoon na. initiative c'était une excellente initiative. que que j'ai trouvé <laughs> man je man je l'ai trouvé. Dans, le sens mais les avis sont sont comme non, les les avis sont partagés euh, Pa xam nga ku xëy euh, téeméer boo jëndee kilo ceeb euh, tëla suñ la indilee sa buntu kër saaku ceeb bu cinquante kilos di nga dina la jariñ. ndax jamono su méttee soo daan def ceebu jën wala ngay def ceebu jaga nga xam ne jamono métti na nga togg sa ceeb bu weex wala sa soom bi sax sa njaboot lekk ngeen mhm. nekk ci jàmm yamut tag leneen mhm. donc euh, je pense que ni gouvernement aussi su demee bay def dara xalaat na ci ba pare soog ko def dans le sens où c'est pas une personne qui décide c'est un gouvernement qui pense à une chose waxtaan ci kii décider mooy le porteur de voix mu mu jottale ko askan bi donc mënuñoo def loo xam ni c'est contre-productif pour la population. donc eh, eh, kon ñu ñu <laughs> il faut ils prennent beaucoup de décisions qui sont mhm. contre-productives par rapport ak ñun bare na ci. Mhm. lu sooxee loo xamante ni. Mhm. on dira on veut bien les dédouaner mais on peut même parfois pas dédouaner xam nga tey quand on parle de manger. ci contexte coronavirus moment bi muy am. Mhm. ce n'est peut-être pas notre débat. Mhm. mais l'idée c'était que ñu demoon dans un autre sens la décision a été prise on loue on apprécie. Mhm. dans un sens parce que looloo fi nekk. mais on aurait pu faire mieux. mais bien sûr dans le transfert d'argent aller dans le pour mu yomb parce que tey. on, on est à l'étape de demander des factures mm -hmm. ma Faye, qui n'arrive pas à les donner depuis le mois de mai à maintenant. Je mets trois bonnes subventions. Ça veut beaucoup de choses te bokk na ci li sappee seen communication. par rapport à coronavirus. mais dans l'ensemble vu que tey Sénégalais yi ñu ngi ci jafe-jafe bu tey bu ma déggee le sens entrepreneurial bi nga nekk. mu jëm ci xool li ñuy lekk li ñuy lu ñuy naan ak nu ñuy organiser suñu dund. ak la santé de la santé la reproduction nu ñuy tax nu ñu ci taxawee damay jàpp ne yaakaar mën peut-être on va clore ainsi mm-hmm. seen perspective yéen mm-hmm. en tant que femme mm-hmm. organisée lan lay doon ci wàll woowu euh, xam nga paasan solution soo ko dee laaj mënoo génn jigéen ñi hmm. ndax jigéen ñi ñoo ëmb ñoo ëmb économie réew euh, donc solution mooy faciliter jigéen ñi hmm. ba ñu jot li ñu war a jot ba mën a liggéey faciliter jigéen ñi ba machine yi nu war a jot ñu jot ci facilité leen ba semence yi ñu jot ci suñu paree tamit nga accompagner leen former leen ñun suñu objectif à court et à long terme c'est la formation avant tout ndax nit ki mën nga koo may tey benn machine machine boo xam ne groupement bu vingt femmes ñoo koy utiliser te former woo leen à l'utilisation et à la maintenance de la mm. machine su defee 6 mois mu yàqu ñu soxlawaa ndimbal ñëw ci yow donc soo bëggee nag ñu bañ a soxla ndimbal di ñëw ci yow di la laaj saa su nekk ndax benn góor bëggul laaj. Mhm. da nga leen di kat jox leen machine ba pare jàngal leen nu koy jëfandikoo. doyul formation bi doyul mais aussi mesure d'accompagnement pour wax leen ni kat yéen yéen ngeen machine bi may nan leen ko 300000 lay jar soo leen di soq wala ngeen di wal ku nekk ne joxe ñaar fukki dërëm. ñaar fukki dërëm yooyu ngeen def ko ci épargne soo balaa machin bay yàqu di am loo xam ne di ngeen ci mën a am yeneen machine su ko mu am une une durée de vie. parfait. merci beaucoup en tout cas c'est c'est dafa mel ni mbay mi jamono ji ci mbas mi moo mën a suqali réew mi te jigéen yi ñoo ko yor kon nag war nañ leen gëstu bu baax a baax soxna Faar tout à du jamonoy mbas kese sax mhm. jamono joo xamante ni si réew boo bëggee mu développé bu dee bunt yëpp nga fëgg te doxul da ngay xool li nga xam ne am nga ko comme ressource am nañu teer wax nga ko mhm. am nañu ay groupement de femme mais accompagnement bi mhm. ñoom dañuy joxe rek financement après on laisse te loolu dañuy am jafe bu ñu noppee naka la ñu koy jëfandikoo wala naka la ñuy fexe ba nit ñi jëfandikoo ko nit ñi jot ci jot na tey ñu taxawaat jàngataat loolu xool ko daal fay dugal seen doole ngir mu mën a suqali ko parce que boobaak léegi ñu ngi koy wax amul mm. solution te gis nañ ko mi ngi nii nii lii mën na la amal njëriñ kay dañ ko def mu amal ñu njariñ mais soxna si baykat yi dañuy bay soble ba pare mu nëpp ci àll bi c'est mm. un problème aussi mu nëpp ci àll bi loolu tamit problème la formation et conservation soo formé nit ki wan ko ni ñuy conserver da nga soble bi wowal ko def ko pëndax wala mango bi wowal ko def ko pënda tu peux faire beaucoup de choses loolu mën nga ko utiliser dans cinq ans dans dix ans donc on ne développe pas un pays sans l'agriculture mm. waaw donc war na ñoo jàppale bu baax a baax ba li ñu bëgg tamit ñu def ko fi ñu bëgg a yegg ñu yegg fa ndax kat réew agriculture moo ko yor dëkk yi nga gis yëpp nga xam ni toll nañ fenn fi ci mbay ci mbay lanu lanu lanu def seen ak seen kii yëpp seen énergie yëpp. justement Passane lii dafay conforter euh, li ko tàmbale mooy discours suñu yaay ji mi Mimi Touré dafa ne euh, tey ji nii ñoom bu ñuy bëgg di wax ci suñu njur yi sax ab sob la ndax li muy tontu noonu wax ju yegg dafa ko moom. Mm. waaye ñun liñ ci dégg loolu la waaye nag nañuy fexe ba suñu jigéen ñi liggéey kon nag tubaab bi moom nand na ni suñu jigéen ñi bu ñu liggéeyee suñu góor yi dañuy gën a góorgóorlu. Mm. te bu boobaa ñun dañuy rëcc kon nag comprendre ngeen moo tax ma bëgg ngeen partager lii tasaaru ci àddina ndaxte am na ci kàllaamay nasaraan am ci kàllaamay euh, coach bu ko defee ñëpp daal di ci jot Pape mu am solo réew mi nee naa leen dénk leen ko jigéen ñi ñu bañ. dem leen ay mu ngi ci xam-xam. Oh, mu ci xam-xam. boo comprendre li ñu naan comprendre. Mhm. parce que ñaar ñaar la tubaab def ñaar dafa boole ñaar mooy cest à le le sens du savoir. Mhm. ak le sens du croire. Mhm. léegi jël sens du croire. tuuf ñu ko. ñu ànd ak moo tax ngay ji ngay ngay gis ñu naan waaye sooy dafa tubaab dafa am classe. ñoo ko ëpp classe. <laughs> mais dafa di moom loolu sens boobu la ñu yóbbu. alors que il s'agit pas de du sens du croire. il s'agit du sens de la l'appréhension la bonne mm-hmm. appréhension. Mm-hmm. la bonne appréciation. Mm-hmm. pour une compréhension crédible. boo comprendre. boo amee information da ngay xam ne xew. day tax kenn du la mën a nax. et sunu yaay bi Aminata Touré qui a été un prétexte par rapport à ce vendredi là. lii nii xamal lan laa si dégg man. Mhm. lii nii. Ah. dafa di taxawaay bi mu am nii ci kanamu Sarkozy. mooy taxawaay bi mu war a am moom fii ci biir Sénégal vis-à-vis des Sénégalais vis-à-vis de son propre parti vis-à-vis de ki nga xamante moom lay liggéeyal muy président Macky Sall jigéen am na doole boo xamante ni am na fu réew di toll am na taxawaay bi muy jël rek orientation bi baax. Mhm. Mhm. est-ce que ñu ngi koy déglu tam bu ñoo ngi koy déglu aussi est aussi. est ñoo ngi koy déglu xam nga fii Sénégal gars yi dañuy faral di wax ne dañu lay dénk ba pare nag euh, euh, <laughs> yilif la da ngay nekk rek benn mannequin buy représenté rek. Ah, doo dogal un dernier euh, merci beaucoup Pa Assane merci beaucoup à tout le plateau Asma merci euh, merci beaucoup aux auditeurs euh, de la Sen TV. <laughs> mais Pa Assane jigéen mënul def dara su amul ku ko góoral su amul ku ko jàppale. xam nga suñu waxee jigéen rek wax nañ góor. wax nañ complémentarité wax nañ aadama wax nañ awa mhm. ñaar ñooñu ñoo ànd doon benn mhm. def àdduna li mu doon tey mhm. donc maa ngi remercier sama borom kër Chérif xay dara moom mi nga xam ni moo nekk sama wet moo nekk sama ginnaaw ci lépp moo la dooleel ci jàpp Chérif donc moom moo ma accompagné waaw donc euh, ñi ngi koy nuyee di ko remercier Euh, mes deux parents aussi euh, nga xam ni yal na leen fi yàlla yàggal allahumma amiin waaw fi yàlla yàggal ñi nga xam ni maa ngi liggéey ak ñoom nga xam ne ñi ngi jàpp depuis boobu bàyyiwuñu lu ñuy yor ñu ngi ko ciy def xaaruñu ndimbal xaaruñu kenn suñu yoree fukki dërëm def ci def ci suñu yoree ñaar fukk def ci kenn taxawul ñu ngi ci transformation bi ñu ngi ci lépp maa ngi leen di nuyu ndax euh, Aïcha Diallo mi ngi nekk euh, États-Unis euh, nekk Gambien lu muy liggéey da koy liggéey uniquement di ko yónnee pour li ñuy bay suuf yi ñuy bay engrais yi ñu ciy def wala semence yi lu ñu ciy def pour loolu la Yacine Diandiaye moom tamit mi ngi ci loolu euh, Aïssatou Cissé moom tamit xam na ni consommer local bërki démb rek mi ngi dem ci TFM di ko fa mhm. donc ce sont des batailles qu'on a choisi te on va le mener ñi ngi ci yaakaar ndimbal suñ ci jotee alhamdulilah dinañu yombal ça facilité mais suñ ci jotul tamit dina lijjanti avec nos propres moyens def ko parce que nag dafa jot ñoo toog rek di xaar xam nga paasan soo nekkee Europe liggéey huit heures de temps soo ci paree tegaat fële yeneen deux heures wala yeneen quatre heures liggéey bi nga doon liggéey temps bi nga def ak énergie bi nga def pour am sa benn mille cinq cent wala deux mille euros soo ko toogee fi sa dëkk liggéey ko def ci énergie boobu di nga am lu ko ëpp te doo ko am pour yow kese da nga koy amal mbooloo donc maa leen di remercier si opportunité bi ngeen ma may ba ma toog fii ba mën a lancer message bi mm-hmm. di leen wax namit su fi mbas bi jógee yal na fi jógee nit ñi sonn nit ñi tiit nanu nit ñi mm-hmm. jaaxle nanu yal na ko suñu borom bi jëlee eh, ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mmh. waaw su ko defee ñun nag ñu mën a dérouler parce que ñu ngi am benn fête bu ñuy def au mois de février nga xam ni la princesse du Koweït sera présente toutes les femmes décideurs du monde seront présents euh, Marième Faye Sall euh, sera notre marraine incha allah on l'espère on lui lance on lui le message donc jigéen ñi nga xam ni ñëpp liggéey nañ ba taxaw ba am ba am benn doole bi dinañ taxaw ñëw dajeeg jigéenu sénégalaises yi jàppale jàppale leen donc loolu ce sont de très bonnes initiatives te yooyu bari na fi nit ñëpp a ngi daw jëm Afrique ndax xam na ni fii nag li fi des fii la nekk donc ñu tamit nañu am fulla ak fayda te ñu moom <laughs> <laughs> ah, man bokk naa yow bokk naa man naa léegi xam nga man ci waaw <laughs> jigéen yi am nañu doole ñun rek ñun ñun ngay waxal Sénégal bu defaroo rek. jigéen ñi koy defar. kon nag dafay baax ñu nit ñu xoolaat suñu bopp bu baax a baax gën a góor góor lu gën a euh, li ñuy wax fas sër bi. bu ko defee ñu naan ñu waaw takk ba mu dëgër naan ñu waaw kumba ñu ñoo mën a relever la pente justement te nag mam awa moo yàgg dee mam Adama ba tax ne nag àdduna mi ngi yàgg di baax ba tey Papa Sane merci pour la chronique du vendredi. jërëjëf tu as vu aujourd'hui je me suis tue tellement <laughs> <laughs> en tout cas c'est magnifique ah madame Haidara yal na yàlla sàmm la may la it nga yeggali sa euh, yéene ci doomu aadama yi surtout ci sénégalais yi dafay baax xam nga tubaab bi lan moo tax mu ñuy xeex ak doole ni Papa Sane mooy que suñuy ñooñ dañoo dem ci seen réew mhm. xam seen ay secret ñibbisi ne lii kat ñun ñoo leen ëppalee ressource bi ñu mën a rëccee eh, ci eh, solution bu mel nii kon nag yéen ñi bu ñu leen joxee kàddu dañu leen ko waroon a jox bu ñu leen dimbalee tamit dañu leen war a dimbalee te eh, képp kuy chef d'état war na mën a gëstu mm-hmm. ak gëstu ñi nga xamante ni ñoom ñooy ji jigéen ñu mel ni madame Haydara ndaxte dañuy baax ci réew wax nga lu am solo maanaam ci mbay mi mën nañ sax wowal tamaate wala leneen li ñuy bay mm-hmm. ba def ko poudre te dinañu jëriñ ñun mm-hmm. on a un trésor on a le soleil. wallaay important c'est important. loolu mën nañ cee am lu bari mën nañ cee def lu bari. kon nag bu ñu waxtaanee mbay mi ba pare dañuy jëli publicité fàttaliwaat li nga xamante ni moom la ñuy yor ci mim.